ba léegi ñu ngi ci euh, programme ki ki ñu woy Ngoné Mbaye donc invité yi yaa ngi nii donc soxna si naa def. maa ngi fi yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax waax. soxna si da ngaa sañse wax nañ la ko. ah sañse bu baax maa def fii fu mag rek. da nga def fii fu mag. def samay du yem rek waax. lu war a setee waay fii tey. sama doom moo fi liggéey rek ci fan moom <laughs> sama doom moo fi nekk waax. sa doom. waaw moom moo war a setee waay fii tey. waaw moo war a sama léegi lan ngay wax ci bés bi tey kontaan rek kontaan nañu si sa yàlla jufaan mu ngi jàppale xale yi ah, baax a baax a baax macha allah daal kontaan nañu ci moom.

mu nekk loo xamante ni yàgg na yàggul ndax ci diiru fukki at ak lu tegal rek la mais bi ma xamee Fatma ba tey te li may wax je prends à témoin Cheikh Mbaga je prends à témoin Sarax mi toog je prends à témoin Mbaya ah hein, Ibo maanaam ñëpp ñu fi toog xam nañ suñu diggante ak Fatma. Fatma bu keppaaru maam aye dooleem du ko fekkee xelem du ko fekke alalam du ko fekke te li gën a yéeme ci liggéey ak nit mooy ngay liggéey ak moom mu am ci yow yërmande billaahi wallaahi daf may xool ba si yàgg may am yëg-yëg sama diggante ak moom parce que festival bi daf ma yërëm ba benn moment day ñëw di jàpp sama loxo dimbali ma nga toog te nga toog boobaa lu matul yëpp ñoom ñu ngi koy réglé seen biir ba ci festival bii mujj commission féminine nak lañ ma jëndal te lépp ci moom la jógee. waaw waaw waaw xam nga ne kontaan si yow de kontaan naa si yow nii la man damaa bëgg di xëy suba. te signe bi muy nga sotti ko mu set wécc di reetaan waaye ay reema waay reema reema ngir yàlla waay reetaan nga reetaan ay waay waaye yow ndimb yow daal doo changé ah dëgg neex nii la ma yàlla bindee moo ma sa changé nii la ma yàlla bindee waaw waaw man daal yow reetaan ma rek dem dee rek waaye nag am na lu ma la indi lu neex a neex a neex lu dàqale mag meew ah waaw loolu lan la lu dàqale mag meew ah déedéet waaw waaw loolu mu doon reetaanaat ma reetaanaat ma wuy sama ndey woo woo woo. waaye lii lan la. dafa sa loxo bët. surprise. waaw waaw. lii de ba may ñëw. croisement tali Diallo laa jaar. jënd ko jënd tissu bu rafet waay. dem Diallo kan sama xarit bee ko ñëw. ñii dañoo mën a ñëw. xale yi léegi mama xaw ma lu leen waay di jaay waay du ñëw def te loo ci xamul Karina Kapoor ah, ba ci Basan Aminata Badiane ah. ñoo koy ñamal nga ni ma wéroo ay lay la la xanaa ñoom dina ay nit wala nit waaw yàlla tere sama robe yi may sol ah. samay taybaan ba si samay chemise de yi ma lay bëggalee ci lal bi ñoom ñoo ma koy ñamal loolu lay la la eh, eh, eh. voilà kon nag baax na ndax oh, barki démb ba ñuy laa ni soo ba mu nuy jotee porté nga sama ñaari caleçon waxal ma leen fu ñu ñawal ma ko. loolu boole. yaa ko wax de. pour rek. boole. ah waaw. kon nag léegi kan moom désormais jeex na nak nag bés bu bay ñaw loot xam fu ma yem. nag looy jëm fan la ngay jëm. xam fu ma jëm. waaw damay dem ba sama ay da couture samay dara yi sol koy ah dëgg neexul de. waaw samay tay baas yi sol ñoo koy ñawal. waaw man mii sax samay kos ñoo koy ñawal. waaw dañuy ñaw ah. góor jigéen mag ndaw ba ci suñuy maam waaw waaw eh, eh, eh, waaye nag loolu jaaxaluma ne ah dëgg la ñoom def yooyu yëpp waaye nag xam nga ñoom fan la nekk waaw ah. loolu ngay laaj. waaw ah, ñoom fu ñu nekk. waaw. baal ma de. waaw. ñoom fee lañ nekk de parcelle parcelle. Bacha! Boy, boy, boy, xoolal paa bi du sa morom ah. ah du ruubee paa bi. kii kilifa la sa morom waaye tamit. ah, ah la paa bi nekk ko. ñoom fee bu ne naax naa di fen ragal leen yàlla ñoom ne man li dégg sànq si tata ba ma yëg bu may ñëw fa na jam jam xamante ni moom foofu moom fa lañ nekk waaw ndax dégg naa jam ñaati ko fa sol yére bu rafet rek ñoo ko ñam wax na dëgg en face lycée Limamou Laye ah. mën na ñaaw seet leen bëgg nañ seen bopp dañuy attiré client di kaf di dee di la bëggal di la bëggal eh, eh, eh, tas ma ah aco di la bëggal la génn doon waay ñàkk fayda buur day wax lu ko leer waaw yéen boo leen xamoon boo leen ko xamul ngeen laaj ma waaw xanaa xamoo ne fan moom buur sama xarit la ah. lépp eh eh eh eh eh eh, eh. sa jabar la sa jabar la. yàlla waxtu de. waaw waaw di laa wax waaw waaw. dóor la na ngeen sama jabar la sama jabar la. waay waay. du dëgg yow. du dëgg yow. yow xaw ma looy mel na sa kanam gi nag xotti séeréer nii. tegal bi waay yow ok ma doon xanaa. wàccal yow ngëj yow yaa reew xam naa la neexoo wax maa de ko téye waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar may ñaan yàlla képp ku jot photo bi ak sama audio bi na nga xam ne ne maa de ko téye fii la ñu nekk si géejawaay nekk ay ndaw nga xam ne bëgguñu leen lu dul liggéeyal seeni réew maa ngi dëkku tiir fekk dañuy xool lan mooy jëmbale développement wu senegal ñu ciy dox di ci wax di ko jëfee guddeeg bëccëg suba ak ngoon à partir d'aujourd'hui maa ngi dëkku tiir dañuy def défilé ah, défilé waaw défilé bu ngand maa ngi dëkku attention attention. préparé leen am na benn défilé bu mag boo xam ne moo fi war a am maa ngi doon couture ñoom ñoo war a ñëw léegi. Ah. waaw xale bi dafa taaru nag. may wax jël faa njaga sama wet da di sama gàllaay barki Seydina Mouhamed macha allah duma fëgg benn bunt mu dëgër barki Seydina Mouhamed lu fëgg macha allah dañ koy ubbi ndax tubaarikàlla faa njaga yaram dangaa muñ sama kër baay barki Seexu Xadim te li nga muñ ñëpp teg nañ ko suñu bat barki yorant bi yalla sa jamm yag sa fan kundu ndax man yaay sama galaj. bo fi nekkul won mu ñaaw barke yonent bi Fall ñega yaram man dal mo ngi nonu dal mu ma wax di sori waye nak bu ma joge fofu damay remercier ñi nga xamanteni ni ñoo jàpp ci bëss bi muy as ñaam ma bokkal paru mam di momo sama rak di xala yi nga xamanteni moy mooy samay élève ki ne Saw ak ñi nga xamanteni ñoy élève madame Thiam ma ngi remercier ñepp duguma lim nak ku lim da ngay juu mais ñi nga xamanteni ño nek ci bop bi ma ngi leen di remercier bu baax bu baax baax baax baax waye aussi tamit di remercier samay mbokk artiste ndax nak tubarakallah bu ñu artiste yi <laughs> dina neew de <laughs> ay bop merci beaucoup waye aussi tamit samay marraine ndax kenn ku ci nek ci ñoom rek li tax ma marraine li mo taxon ma bëgg micro saaf bi ndax tubaarikàlla damay baña ju fil bi jeexna na la yam tubaarikàlla mën naa fee yem ay ca <laughs> li tax ma nañ ma jox micro bëgg jaakar lok samay marraine ndax muy Mariama di judul libas Diallo di an tata aji an képp ku ma ci marraine wala ma pareele rek mu ngey mu mo da nga am ben cieur ci man bu baakha baakha baakha a baax gis na taxaway bi ma ngi len di remercier bu baakha baakha baakha a baax merci beaucoup yalla and bi yag te setan baña a dugg sama digënté ak yeen merci beaucoup. waye nak suma joggé fofu foofu damay remercier ñi nga xamanteni ñoy ñooy samay famille yeen luma ma dugg ngeen dugg ci te xam ngeen ni dama bëgg ay dugg-dugg.